ndax Mor fii nga ñëw fii ci Medina Tandia bu ñu la waxee ne le président Macky Sall bi muy campagne gis nga fii ni mu gannaawee ci njaareem dox na ba egsi fii ànd ak Aminata Tall ànd ak Moustapha Cissé Lo ànd ak Dame Diop ànd ak ñeneen ñu ñëw ba fii setti sëriñ bi bi ñu ñëwee daar ji ma la wax ne ñetti téeméeri dong ñu ngi fi yeewoo ci sëriñ Omar Tandia ngi yilif leen te benn daara la ci ay daaraam yu muy yilif président Macky Sall ñu dalal ko fii mu toog fi ñaari waxtu di xaar sëriñ bi pour mu pare ci taalib bi bu mu doon ñaanal fii pour war koo joxe mu sëy ñu ne ko sëriñ bi mi ngi jàpp mi ngi ci seet bu muy ñaanal ñu ne yàkkamtuñ nañ toog xaar yaa ngi may dégg bu baax Mor président Macky Sall ci jamono boobu nekkagul président opposant la mu ànd ak loolu yépp mu toog xaar ba sëriñ bi noppi yitteem mu gis sëriñ bi wax ku bëgg-bëggam sëriñ bi itam ñaan ci yàlla na ko baayam yi ak maamam yi daan defee xaw ma gan ñaan moo fal président Macky Sall waaye xam naa ne ñaanu ko Serigne Omar Tandiang ci la bokk ndax fii mu ko fekk daara la bi mu ñëwee li sëñ Omar jëkk a mooy jël Macky Sall fa ko fañ ko dalal indi ko ba ci biir daara ji présenté ko projet daara ji yépp ñu wan ko fa benn teen ne ko teenu barkeelu la président Macky Sall ne nañu rocc ci teen bi jox ko mu naan teen baa ngi fii ci daara ji ñu daal di abbu ab kaas jukki ci teenu dongo yi bi dongo yi naa ne jox ci président Macky Sall mu naan man li ma lay wax nii mag ma fekk France bi ma ñëwee la ma ko samay kilifa nett li ne ma président ñëw na fi lii ak lii lañ waxante ak moom mu diggee ne bis bu yàlla dogalee nguur dugg ci loxoom dana bokk ci yitteem mu jàppale nit yi diine yi te du ci fàtte kër gi waaye ba ko Macky Sall waxee ci 2012 ci ban at dañ nekk moor 2020 ba tey gisaatuñu Macky Sall gisaatuñ ko mu dellu si bi gisaatuñ ko mu may ñu audience ñëw ne li ma leen waxoon ñëw leen la ma man ma def ko ci président Macky Sall nag président Sénégal yëpp la nekkul ne day dem ci génn kër lam am mu sotti ko fa ba mu jeex bàyyi ñeneen na muy defee Touba di ko defee Tiwaawoon di ko defee feneen noonu la noonu la war a bàyyi xel kër gi ndax kër Maalaaji Mbàkke Tànjang gi njaboot ji fi ak yëpp la yelloo nañu ak li ñuy defar kër yi diine yëpp ñu di leen fàttaliku nit ki nag boo toogee ci sa bopp sab nawle dawal otoom ba fekk la fi nga nekk laaj la luy say bëgg-bëgg nga war ko say bëgg mu wax la bosam nga jàppale ko ci bosam ba bosam sotti gisatoo ko déggatoo ko kooku bis bu ñëwee war nga koo fàttali li mu fi boo ko mënta gis it ña nga xam ne ñoom lañ ñooy ay ndawam ñu jàppaleen tey président de la république jiitu ci monsieur le préfet Ibrahima Fall jiitu ci itam gouverneur ñoo ñooñu ñooy ndawi président de la république ci région bi kon bu ñu leen gisee war nañ leen a joxaat suñuy doléance pour ñu yóbbul ñu ko ci président de maa ngi nuyu préfet Ibrahima Fall di ko sant ci taxawaay bi tam ci kër gi ndax nitu nitu administration la waaye itam nekk gi fi nekk nekkal fi président Macky sàll lu sëriñ Omar soxla ci dëkk bi mu jëm ci taalibe yi ak njaboot gi ci wàllu administration lam man man ko ca daw de passage ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay boobu mu am ci kër gi waaw tabarkalla foofu lañ ci yem waaye daal revendication yi ngay dégg ma koy wax yëpp man porte parole laa ci kër laaj Alaaji Mbàkke Tandian maay porte parole famille kër Alaaji Mbàkke Tandian nekkul ne samay xalaat kese laay waxee man dañ may sant discours fii ma toog ci Medina Tania bi burdu bi pare sama discours maa ngi ko def ci politiciens yi avant ñuy falu ni ñuy def ak ñun ak bu ñu faloo na la ñuy def ak ñun. démb rek maa ngi koy wax maa ngi wax ma ne bokk na ci fii ñu toog ci Medina Tania politiciens yi ñu fiy fekk si ku faloogut boo ñëw benn oto képp nga yor muy sa oto bopp boobu xam nañ ne yaa ko moom waaye boo faloo boo ñëw dañuy gis ne lu ëpp juróomi 4 4 wala fukk ñoo lay topp kon xam nañ ne loolu nga war yow moomoo ko suñuy moyen bopp moom lañ la jox nga war ko carburant bi ngay dawal ñu ñoo la ko jox ndax chaque jour loo jënd ci bitig bi wala man mi yor ab oto oto ba ma yor essence bu ma jënd taxe yañ cay teg ñoom koy versé ci ci trésor te président de la République bu sa bu soxlaa la la douane liggéey trésor liggéey ko keneen liggéey ko ci lay jël pour defar pour defar yow mi ministère yi ngay dégg yëpp ministre bu nekk ci lañ koy équipé ne yow ministre nga tey ñu ne la ku mel ni ministre ñu ne ah monsieur le ministre tey ñu fëgg ma fii ne ma ministre ñëw na ma ne na yegg si mu ñëw ma dalal ko ñu waxtaan ca suba sa man ma jóge fi dem kër ministre seeti ko su ma demee ñu ne ministre nee na dafa jàpp nga may ko tuuti jubluwuma ci kenn tudduma kenn nag képp ku jàpp ne ministre sàngam laay waxal ministre boobu na jël te xam ne moom laay waxal waaye man dewuma kër ministre dewuma bureau ministre seetiwuma ministre damay wax tout le temps ma ne njaarim administration ñi fi nekk ñëpp nekkal fi yoon benn nit laa fi mës mës a dugg bureau ci politicien benn benn politicien muy muy Malick Fall te matut juróomi weer laa dugg bureau ma ne ko Malick maa ngi lay seedeel ni bureau bii di bureau maire maa ngi fiy door teg sama tànk tey te ndigal moomu fa yóbbu Serigne Omar Tagna moomu fa yónni boole ma ak délégation ci xew-xew diine boo xam ne xewoon na fi ñu dem doon ci waxtaan ak Malick keroog laa mës a dugg ndax man moor li ma wax léegi mooy sama mbir man sama ngor duma ko jaay amul prix ministre bu mën a doon ci fii DG boo mën a doon bis da ngay xëy wàcc man li ma nekk nii moom judd ci bu soobee yàlla moom laay deewaale man ci laay dee lii ma nekkee yàlla defal ma ko ci mbaaxu yàlla yonent bi ak barkeb maam alaaji Mbàkke Tànjang mi nga xam ne amuñu ku dul moom te yaakaaruñu ku dul alaaji Mbàkke Tànjang ci àddina ak ci àllaaxira ga ñu jëm lim lim ñu defal ci teraanga mu néew mu bari xeebuñu ko kon du ñu jël teraanga boobu ak suñu ngor di ko jëndee dem di rang ci ministre wala ñuy rang ci ay DG wax naa démb ma ne sëriñ du jaxasoo ak buur ndax doxalinu buur baaxut ci sëriñ ab sëriñ da toog fa nga war a toog nitu buur ba la soxla fekk la fa nga lay fekk la ngeen waxante nga waxan ko lu mu la mën a jariñ ci say projet yi lislaam mu jariñ la ko loo ko mën a ñaanal nga ñaanal ko ko nga bàyyi ko mu dem loolu mooy tax li nga am ci ngor ak sa lislaam ñu bàyyee la ko jamono bu ministre bi wala DG bi xamee ni mu yor bëgg nga yow problème ñëwal na la yow sëriñ man nag sutura bi ma yàlla defal amut lu ministre yor lu ma soxla soxlawu ma daray ministre ci internet laa nekk soxlawu ma daray DG li ma soxla ci ñoom rek mooy taalibe yi topp ci man jàng ba pare bëgg formation professionnelle ñu formé leen loolu di ko ma ko defal ma sant la gërëm la taalibe yi nekk ci kër gi jàng am ay diplôme war a dugg fonction publique te duggaguñu nga jëlal ma dugalal ma leen fonction publique ku ma ko defal ma gërëm la ñaana la lu ma la mën a jàppalee ma jàppale la ko waaye bu dee ceeb boo may jox téeku bu dee enveloppe bu xaalis boo may jox téeku bu dee carburant téeku bu dee passeport diplomate téeku soxlawuma ko man soxla man ma leen dara ku ma ci toogal ñi ma ci am ci xarit ci dëkk bi itam dama leen wax ne leen ku ci gis appelub Serigne Baye Niass Tandian jëlal ñaanu ceeb ñaanu diwlin ñaanul audience moor lii mooy suñu problème ak politiciens yi ci dëkk bi boo gisee jamono bu nekk sama revendication ak ñoom mooy li ñuy dund ak ñun ñun dañ ko rafetlu maa ngi wax démb ci suñu waxtaan ma ne sëriñ bu sant Mbàkke bu ñu ko joxoon présidence de la république mën naa doxal réew mi moo wax ma ñuy sant Mbàkke ñaata nit la ñuy recevoir par bis mais ñooñu mën nañoo coordonner am réew présidence du dara coordination la rek ab ministère ñu fan la ko mais du dara coordination la rek mais ñoom fexe nañ ba gëmloo ñu ne ñu ku jàngut français waroo mën a tekki waroo mën a doon président mënoo doon ministre mënoo doon député démb joxe naa benn exemple ma ne boo demee Arabie Saoudite est-ce que Amir Prince Salman est-ce que est-ce que est-ce que Amir Salman est-ce que moom jàng na français benn baat français xama ko arab kese la jàng loo ko wax ci anglais dégg ko arab kese la jàng te teewul tey dëkk bi gën a am solo ci l'islam muy Arabie Saoudite ko ko coordonné di ko doxal mais mus xamul benn baat français mais lu tax taalib yi jàng alxuraan ba mokkal ko yor ay junni nit di leen tarbiya di leen defar ñoom pour ñoom état bi jàpp na ne ab sëriñ wartu ma a yor benn direction yow ci daar ji rek lañ lay fekk buñ la soxlaa ñëw dig laa digga digga digga digga dig ba seen yaram tàng bu ñu faloo woon la ginnaaw benn benn benn post bu baax yéene wuñ ko benn kilifa diine mais Sénégal ni mu toll tey waroon nañu am wasaaratu shu'unil islamiyya ministère boo xam ne lépp luy l'islam ci Sénégal ministère boobu moo ko yore ñu xool ci këru kilifa diine yi ñu jàng ñu dénk leen ko dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulmans mais attends lii mooy suñu problème ak ñun ñu jàng tubaab defuñu ñu jàng ñu jàng alxuraan daanaka defuñu leen ay nit ñu ci gën a bëri defuñu leen ay nit. te man mii tey makisal Sall président Macky Sall fee mu toog bu fa jóge woon ku ma jox réew mi ma yor dégguma français nag mais pour ñoom pour ñoom nitu état yi ñàkk dégg français handicap la ñàkk dégg français handicap la mais français boo génnee France dugal Italie wax leen français duñ la tontu dugal Espagne wax leen Italie wax leen France duñ la tontu kon luy problème bi. loolu kese eh, Mor mooy revendication yi et en plus ñoom aussi ñoo xam ne doomu daara yi bu dee maire mën nañ koo doon nit mën ngaa jàng alxuraan kese doonu maire mën ngaa jàng képp ak arab doon ak DG ñu jox la boîte nga yore ko di ko doxal mën ngaa yorub ministère di ko coordonné di ko doxal am réew ci boppam mën nga koo jiite nañu bàyyi nañu génn ci bopp nit ñi ne ku jàngul français doo doon dara français du dara ab làkk bu ñuy làkk képp dañu ko bind te ñi gën a néew doole ci àddina France yi ci lañ bokk duñ première puissance duñ deuxième puissance mondiale mais ñun def nañu ci ñun benn façon défine boo xam ni da nekk ab sénégalais di citoyen sénégalais dem jàngi ci daara ji kii dëkku lay lañ nekk dëkku démocratie lañ nekk kii am na droit dem jàngi alxuraan dem dem jàngi alxuraan ak arab loolu moom loolu la bëgg mais lu tax bu ñëwee nga ne noonoo kii moom jàngale rek la man ku jàng france daal astaghfirullah arab ba keer am ay diplôme am xaahira wala mu amee ko Saudiya wala mu amee ko feneen bu ñëwee jàngalekat rek la mën a doon buñ la joxee buñ la joxee lu gën a mag ba gën a mag mooy aj pèlerinage ñoo xam ne màkk la jëm ñu ne nañ ko jox jàngkatu arab yi jël ñeenti arabisant wala juróom dugal c'est ñi nga xamante ne nii dama wax ni buñ yaakaar ni benn ministre wala benn directeur de société wala benn nangam yow yaa ëpp xel ndongo daara bi nga xamante ne nii addinaam yëpp alquran ak sharia la ko jàng ëppoo ko xel ëppoo ko xel te itam léeg-léeg nag euh, fa law lool rek mooy problème yi ak ñun nañu bàyyi xel ne doomu doomu soxna yi nitu diine yi ay boroomi xel lañu te moor li gën a métti mooy da gis benn politicien bu jógee fële ñëw toog ak yow jël sa xel mi aj ko ci kaw jàppale yow ko amul xel zéro xel ba pare toog di wax ak yow mel ni koy waxal bàyyi ma da toog mu leer na leen ni ki li mu wax yépp dara du ci dëgg dara amu ci waaye nooy def waaw nga déglu ko doomu adama ci boppam moom la yàlla ormal wala xadd karam naa bani aadama doomu aadama la yàlla ormal bu nit jógee fële def déplacement ba ñëw toog di wax ak yow faaw nga déglu ko waaye la maam Serigne Abdoul Ahad Mbacke radiyallahu anhu waxoon mu maam Serigne Touba mu ne léeg-léeg nit dana ñëw ci man Abdoul Ahad toog ci man di wax mel ni daa am lu ne ci sama nopp bi naan ma li muy wax du dëgg li muy wax du dëgg. ba damay mujj am kersa man Abdoulaye yaakaar ne sax ki li li ma liñ may wax ci sa nopp ki ma toogal a nga koy dégg te ba mu koy wax am na lu taxoon mu di ko wax nañ bàyyi xel ni doomu soxna yi amul luñ munta yor amul luñ munta doxal réew mi jàngkatu tubaab bi séddoo nañ ko fi ñu toll nii dem nañ ba nga xam ni képp koo xam ne borom ngor nga seexlu nga ko seex seexlu nga yenn yi seexlu nga politique en vrai dire du terme sox seexlu nga sax politique ndax nit ñi defee politique ci Sénégal boo ci duggee bu sobaa ñu xas la saaga la wax la lu bon mais pourtant politique nit ku noble moo koy def addina lépp politique la ba ci diina ji ñu nekk yonent bi ci politique la ko doxal ba ci l'islam politique moo tax mu yegg fi mu yegg politique du dara stratégie boo mën a jaar ba développé yi nga bëgg a développé rek la yonent bi bi muy door a ñëw néew doole amul doole mais dafa dem kër ibnu arxam benn saxaaba bu gëm yàlla ñu fay làqatu di jàng alxuraan mu leen di jàngal di leen initier di leen wax naka la mbir mi évoluer di évoluer bañ xëy benn ponkal ñëw dugg si ku ñu wax Omar ibn Khattab bi Omar ñëwee laaj laaj lu xew ñu ne ko ah ñun kat fii lañuy làqatu bu ñuy julli jël ab tax nodd ci yéene maanaam masalan def ko mu mel ni kuy wax ci kaw ñu def seen yéene nodd ci buñ paree daal di julli mataguñ fukki nit ak ñett wala ci la ñuy toll keroog bi Omar ibn Khattab ñëwee la wax ne lii moom day dakk man xajuma ci caaxaan bu fekkee Muhammad lii la yàlla yónni dëgg la nañ génn ci biti ñu nodd Muhammad ne ko lii ma yàlla yónni rek mooy dëgg Omar ne nañ génn ci biti te Omar nekkoon na jàmbaar joo xam ne bi mu laata dugg ci lislaam mu nekkoon ca màkkatul mukarram amul kenn ku ko ñeme ndax nu tolloon ci ci jëmm ak carte bu ko ko yàlla joxoon yonent yàlla Muhammad daana tëdd ba xaaju guddi mu jóg jàpp julli ñaari rakka ne yàlla maa ngi lay ñaan diine ji nga dëgëree ko kenn ci ñaari omar yi omar ibnul xataab wala omar ibnul aas yàlla xëy tàggat omar ibnul xataab ba dugal ko ci loxo yonent bi keroog ba mu ci duggee waxtu jot omar ne lii ñu ne ko nii la demee mu génn nañ ci biti ñu génn ci biti daal di yuuxu noddu ca kaw waa maaka yëpp daw ne kër kër këpp ngir bëgg leen a song si waaye ñu ñëw ba leen di jege gis omar mu rocc jaaseem taxaw ñëpp wàññeekuwaat kon l'islam politique lañ ko soxalee ba yàlla dogal benn ponk ñëw keroog ba mu ñëwee la yëw yëpp jeex ak lépp àddina politique moo koy doxal këru këriñ foog boo fi dem stratégie ba ñuy doxalee politique la mais léegi boo nee terme politique baatu politique ñëpp daw bu la nit ooyee ñu ne diw politicien la ñëpp seexlu nañ ko ndax politique bu bon bi Sénégal di defee politique c'est honteux dafa ruslu taxaw ci télé ŋàññi nit ki saaga ko wax ko lu bon te mu nekk sab nawle ti boo liggéey ñu koy gisaat leen ngeen ànd dem nañ ba nit ñi seexlu dañ ko am na loo xam ne as góor fi mu ne politique boo ci nekkee moor nekk gor su set wecc di sàmm sa ngor bay boo bàyyi doo dem fenn hmm. ku la gën a mën a wor gën laa mën a wax lu du dëgg gën laa mën a nangam moo la ci gën a arrivé mais as gor su set wecc toog fi mu toog du jaayu ngorom bu demee ci militant du wax lu du dëgg du leen déglu mu amut du leen wax lu munul kooku bàyyi ba mu bàyyi politique te dem toog politicien dëgg moom mooy ki nga xam ni bu la nee dama ne nga ne ah dama ne rek mooy dëgg la ca des lépp jëlal sànni ci àll wax naa ko maa ngi koy waxaat texte bi laa doon xool ci sama téléphone dafa sori nekkoon ma wan la ko boroom xam-xam ba dafa wax mu ne as ne fil aalam mu ne politiciens yi dans le monde entier mu ne dañu mel ni kal xuruudu fil xaaba dañu mel ni ay golo ci biir tool groupe bu golo ñëw dugg ci toolub jàmbur fekk tool bi boroom préparé na ko bay ko ba tool bi rafet ñu ñëw yam ci boroom xam-xam ne ne saala saalahu bu ñu amul benn problème bu fekkee ñu am coalition ñoom ñëpp ñoo bokk far lekk daal di lekk tool bi ba mu jeex mais bu ñu amee benn diversité kii farfee kee farfee rek ñu yàqu toolu jàmbur moor ñaata yoon nga dégg politicien bu dugg ci benn kër fexe ba xàjjale kër ga def ko ñaar ñaata politicien nga fekk ay xarit yu ànd guddeeg bëccëg politicien ñëw dugg seen diggante fexe ba tàqale leen fii gis nañu politicien boo xam ne tàq ak politique tàqale na jëkkër ak jabar politique tàqale na ndey ak doom politique da tax na nit rey nit politique tax na nit doo ko ak nit àdduna ak àlaxira mais loolu politique jaru ko bu ñu demee ba politique defarutul day yàq mais nit ñi bàyyi politique loolu boroom xam-xam ba waxoon ci politiciens yi man daanaka dama koy gis ci politiciens yi yàlla wërsëgal ala kulli haal du ñëpp nag waaw du ñëpp règle bu nekk am na exception am na ñoo xam ne ci biir politiciens yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu lañ la wax itam buñ ko mënul danañ ci góorgóorlu ba nga xam ne ñii fii la seen doole toll fii la seen doole toll lii amuñu benn man uma ak ñoom benn problème mais seulement dama nekk nit boo xam ne nit bu carré la te itam dama am ay gëm-gëm te damay bëgg booy déplacé wu ñëm jëm si ci man nit boo ñëwee nga xam ne nit ngay fekk si ab intellectuel lañ ngay fekk si jàng nañu ci daara yi la ñu jaar ci lañ jàngi mais après tukki nañu un peu partout à un peu partout dans le monde rencontré nañ ci biti Sénégal ay ministre ak ay DG ci biti Sénégal di waxante ak ñoom di seq ay mbir lan moo tax sa ministre bi nga dëkkal wala DG bi nga dëkkal bu ñëwee xool la mi ngi lay jàppee comme benn nit boo xam ne xamul dara amul dara comme nit boo xam ne ci daara ji kese la war a yem mais loolu nag sëriñ si jóg